di leen jaajëfalaat bu baax a baax saa su ne yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp à travers Dakar Star TV ak sur nos différentes plateformes tey nag ki nu dalal kenn dootu ko présenté di Serigne Djibril Niang le marabout des grands hommes di sunu soppee di seen soppe macha allah ngeen yàgg ko topp ndax xam-xam xam naa duñ ci sori tungu ne du teew ñu nataal Serigne bi ñu ngi lay ziyaara la bàyyi nga saafoonteeg soppe yi alhamdulillahi alladi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wasalaatu ashrafi alxalq saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi ñu ngi seetaan ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ñaan yàlla na yàlla dolli sutura yàlla dolli sàmm dolli aar te barkeel te lépp loo xam ne wax nañ ko fi comme xam-xam yàlla bi barkeel yàlla na yàlla defal ñu ci barkeel ci barke saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam macha allah sëriñ tey ñu bëgg waxtaanee loo xam ni xëy na ba àdduna sosoo ba léegi mi ngi am. muy bouger jóge ci bërëb dem ci bërëb moo xam tukki la moo xam dafa sori moo xam soriwul waaye mel na bi àdduna sosoo ba léegi ñoo ngi koy gis tey laaj bi mooy. ñëpp danoo war a tukki wala dafa am ñu warta tukki wala dafa am nu ñuy tukkee ak lan mooy tukki ba pare. fa tabaarakallaahu li ma lay njëkk leeralal mooy tukki dafa nekk loo xam ne yàlla da ko programmel ci dundu doomu aadama bi di tax ma ne la yàlla da ko para programme ci dundu doomu aadama bi ndax lislaam dafa ñëw gunge ñu sunu tukki cuun yàlla am na nu ñu wax bu ñuy tukkee nañ ko tukkee ndi yàlla am na loo xam ni dagaloon na ko ci ñun mu nekkoon suñuy warteef fa tabaarakallaa bu ñuy tukki yàlla wàcceel nañu ko cuun xoolal tukki bu dee da ngaa tukki pour wuti ji alal lislaam nee na nangu naa boobu tukki bëgg na lislaam nee na bu dee da tukki ji pour wuti ji xam-xam lislaam nee na boobu tukki man bëgg naa lislaam nee na da ngaa tukki fa tabaarakara pour jàngale ji lislaam nee na tukki boobu man bëgg naa da tukki pour xare ji ndax xare ni takk dëkk sàngam dem dëkk sàngam pour xare ji ci yoonu yàlla lislaam nee na tukki boobu man bëgg naa kon tukki bu nekkul tukki boo xam nit dafa jóge pour dem defe ji lu neex yàlla lislaam da koy accompagner ci tukki boobu noonu. feek mi ngi neex yàlla fekk amul ci tukki boo xam ne lu naqari yàlla moo ko tax a jóg lislaam nee na bu dee da ngay tukki yow nga départ sa dëkk di jëm dëkk boo xam ne sore na lu ëpp 70 kilomètres te préparé woo pour def fa trois jours lislaam nee na wàññil say waxtu julli. bu dee tisbaar ñeenti ràkk la woon ca fa nga dëkk waaye fii defal ñaari ràkk su dee tàkkusaan ñeenti ràkk woon fa nga dëkk fii defal ñaari ràkk bu dee gée ñeenti woon fa nga dëkk fii defal ñaari ràkk bu dee suba ak timis kenn du ko wàññi cuun xoolal islaam yërmande gi mu yërëm ñiy tukki kon nga dégg na ñiy tukki yàlla da leen yërëm ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tukki dogit la ci mbugal cun ku tukki rek fa tabaarakallaahu tumranke nga cun ku tukki tumranke nga loo xamoon sa kër loo bëggoon sa kër la la daan neex la la daan euh, dundal dëgg dëgg dëgg boo tukkee doo ko am xoolal murit bu gëm Cheikhul Xadim nekk taalibe dëgg daan dem fii daayira fa tabaarakallaahu xëy na léegi bitim réew sax am na ay daayira waaye niñ daan dundee fii màggal mënatuñ ko dund fale day am ay limite am na heure bu leen di jox saal am na heure bu ñu koy tas xoole Tiijaan gëm Cheikh Seydi xaaj Malick wala nga gëm Mawlana Cheikh Ibrahima Niass burdu Mawlaa yee sali di ri ci jàkka yi nga ko daan dund tey tukki nga fa tabaarakallaahu mën ngeen burdu sax waaye du mel nii yéen juróom-ñaari nit wala fukki nit yu bokk pas-pas ñooy daje ci benn saal wala ci kër benn mbokki taalibe bokk fa burdu cuun nga xam ni tukki la nga bëggoon la nga daan dund muy neex ci yow mën a toog am fi nga tukkee waaye lislaam nee na bu dee weeru koor la yaa ci tukki te pare wa pour yàgg fa amoo fa soxna bu dee weeru koor lislaam nee na bul woor ba ni ngay ñibbisee waaye cuun nga dégg ci kon lislaam nee na ñëpp war a tukki. ñëpp war a tukki waaye nekkul ñëppay tukki wuti ji am. Ah, ñëpp war a tukki du ci ñëpp la waaw ñëpp war a tukki. cuun am na ñoo xam ne dëkk bi ñu nekk fa la seen wërsëg nekk. am na loo xam ne sax boo ko waxee fa tabaarakallaahu aaya alquran day ñëw mu ne wa ma min daabatin fil ard illa ala llaahi rizquhaa yàlla nee na képp kuy dukkat ci kaw suuf maa yor sa wërsëg waaye cuun yàlla fan la def sa wërsëg kenn xamu ko xanaa nga dajeeg waayu yàlla bu la omat ila ee eh, defal nànk sa wërsëg fii demal jox jëli ko mag ñi da daan ñëw ni ko papa dama bëgg dem defi ji téer mu la bul defi ji téer demal defi ji mécanicien fa xam fa la sa wërsëg nekk cuun kenn ku ne am na lu tax yàlla bind ko te li la yàlla bind boo koy def day saw day yomb ci yow dafa nga gis ku def téer deux ans du dox te mënoon ko loolu xëy wacc fa téer ba dem defi leneen mbiram dox ndax li tax yàlla bind ca foo jaar nga nekk ca yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku yàlla bind cuun waxuma la waxi keneen de wax yonent bi laa lay wax man Serigne Jibril Niang su may wax su ma mënta wax xam-xam damay noppi man samay xalaatu bopp intéressé wul nit ñi man xam-xam laay wax. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla waxoon maa yentixu anil hawa ndax lan in huwa ilaa waxin yuuxa nee na yonent bi maa garanti ay wax lu wax dëgg la lu tax yonent bi danul wax ci banneexu bakkanam nee na ku yàlla bind boole na la ak rawxaan boole na la ak àndandoo yàlla defal na ma sama àndandoo ba du ma dugal ci lu ma neexul. waaw loo ci dégg. kon ñun am nañu sunu àndandoo yoo xam ne mën nañu dugal ci lu ñu neex waaye mën nañu dugal ci lu ñu neexul. sëriñ ma yaakaar àndandoo nekkul lu baax ci nit ndax yenn saa yi dañ naan sëriñ si dañ naan danga am àndandoo est-ce que tamit <laughs> du da ngay compter. raw xaan la bokkut ak rab ku yàlla bind am na rab am na rawxaan gum la seexalandoo lii sëriñ bu ko xamul mënta ñaanal yàlla mënta ñaanal nit gis ci résultat. sëriñ bu xamul nit ku yàlla bind boole na la ak rawxaan muy sa àndandoo muy sa seex keroog ba yàlla bindee sa ruux la bind rawxaan bi cun bul fàtte alastu bi rabbikum xaalu balaaga xanaa nekkuma di seen borom ñu ne axa kay foofu la yàlla boole ñu sun bis bi ñu wàccee ci kaw suuf mooy keroog bala sa yaay ëmbee juróom-ñeenti weer cun yàlla wàcce la ci kaw suuf bisu ngénte cun bisu bisu juddu sax sa rawxaan taxaw ngay nàmp moo lay gunge. ngay raab moo lay gunge ngay dox moo lay gunge des fois nga dégg na ku ni xam-xamam gàtt na gëstoom gàtt na mu naka nit mën a amee ay raxante du ko xam man la ku yàlla bind boole dal ak ñaari malaayika cuun ñun ñëpp xam nañu ñaari malaayika mooy sunu mbagg mi kii di lu baax kii di bind lu te malaayika moo ëpp doole rawaxaan kan moo dox ba yëg ne am na ñaari malaayika yu topp foog ni yàlla dañoo bind ñun nii rek ba ñu ñuy dem cun dese ngaa xam lan mooy yàlla damay faral di wax naan innama amruhu is arada shay'an an yaqulahu kun fa yakun yàlla bu namee mbir da koy tëggin cuun yàlla dafa mat dara manqué wul waaye nga dégg ne ñëpp mën nañoo tukki waaye nekkul ñëpp ay tukki am dama lay tëjal tukki cuun xam nga nit mën a tukkee ci suuf mooy yéeg mbaam yéeg fas ba ni oto ñëwee dem tukki leer na xam nga ne nit dina tukkee ci avion ngelaw la nit di tukkee xam nga nit dina tukkee ci ndox ko déglu leen ma ku sa rooxaan nekk suuf mën nga tukki moo tax nit ki dafa war a xam biddeewam tabi'am des fois nga dégg ku gàtt xel naan tubaab xamul tabi'a def naa ci benn émission boo xam ne ëpp na 40 minutes di wax tubaab yi nga xam ne bind nañ ci les quatre composants ay tubaab tabi'a lu am la. ku ñi yàlla bind ci turaabi yu lu wér la ñi yàlla bind ci naar yu lu wér la ñi yàlla bind ci xawaa lu wér la ñi yàlla bind ci maa yu ñu wér la ay tubaab laax dañ ciy bind tur ay boromi xam-xam bind ci tur ci di ñoo xam ne ci diin islaam la ñu nekk kon ku xamul neel xaw ma da ngay tubaab ñi nekk bitim réew wala ñu yàgg tukki wala ñi nga xam ne yàgg nañoo jëflanteeg tubaab xam nañu tubaab booy jëflanteeg yow am na loo xam ne bu ko gisee ci yow dalay bax am loo xam ne bu ko gisee ci ay signe yoo xam ne dalay topp cuun dama leen wax dara ci coupe di monde bi seetlu ngeen Messi bi muy ñëw. dafa tatoué coupe ko lu mu tuddati dafa tatoué coupe bi ci tànkam. tubaab bi ñoo ñu gën a gëm maji fopp tubaab bi ñoo ñu gën a gëm fétiche fopp tubaab bi ñoo ñu gën a gëm xam-xam bu ñuul yahut ak nasaraan yi liñ fi yoroon ci xeetu xam-xam bu ñuul cuun fa tabaarakallaahu yàlla dimbali sayyidina Muhammad la nekkoon seen xam-xam mu def ko ci téere alquran waaye tubaab ba ñuy am xam-xam ci wàllu ñaan ci wàllu asraar boobu yàlla yónneegul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla nag bi bi ñëwee la tubaab yi yoroon ci seen xeetu xam-xam la tubaab yi yoroon ca xeetu fa tabaarakallaahu def léegi mu sotti léegi yàlla da kaa jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi yàlla inil ko aaya muy wanu nazula min alquran maa huwa shifaa wa rahmatul muminin yàlla mu ni man maa wàcce alquran ngeen ci faju di ci wér di ci ñaan ma leen ciy may waaw secret ya nekkoon ci tubaab bi yëpp moo xam yahud ak nasaraan yëpp yàlla dëxañ ko ci biir alquran bari na ku ku tuub fa tabaarakallaahu dafa gëstu xam-xam yu fekkoon ci maamam gëstu la mu gisoon ci ay baayam ñëw fekkoo ci alquran xam ne yonent bi yàllaa ko yónni kon kenn du sallallahu alayhi wa cuun nee naa la ku ne dafa am rawxaan turaabiyu maayu naariyu hawaayu cuun ku sa ku sa mbir nekk ci yu mën nga tukki mooy ku yàlla bind ci suuf mën nga tukki waaye yow sa tukki fa tabaarakallaahu da am fa nga nekk waaye da fa sax de bari na ku tukki am problème ñibbisi mën naa am am foofu teraanga am këyit waaye dootul bëggati dëkk ba mu nekk ndax moom dëkk bu mu nekk dafay nekk à l'aise yàlla da bind ci suuf te fépp am suuf. fu mu ne day sentir boppam ci dëkk boobu noonu am na këyit am na alal wala am na foofu wërsëg waaye moom ñibbisi ak toog foofu la yemale fu mu nekk day sentir à mooy gan yi nga xam ne xam nañu ne waaye xamuñoo ñëw. cuun fa tabaarakallaahu am nañu yàlla bind ci ngelaw ñu nag ñoo war a tukki ñooñu moom tukki. ngelaw ngelaw du toog cuun kooku dëkk bu mu nekk. su fa saxee mbiram yàqu dafa ngi ku tukkit dem Espagne mbiram tàmbalee dox tàmbalee neex mu toog tuuti mbiram tàmbalee dëgër mu jóge Espagne dem Allemagne mbiram tàmbalee neex. dëgg la da xam sa bopp. Euh, fa tabaaraka laahu aarif ba dafa man xaarafani arafa rabbahu ku xam sa bopp xam yàlla. yàlla moo ni taarifuni qabla an taabuduni fa in lam yaarifuni fa kayfa taabuduni xam leen ma balaa ngeen may jàmm boo ma xamul naka ngeen may jàmmoo borom xam-xam yi ne ni ñuy xamee yàlla mooy dañ koy xool ci lim bind lim bind da nga caa bokkul. moo tax arif man arafa nii arafa rabbahu ku xam sa bopp xam yàlla. te kenn ku ne nag sa bopp la gën a jege. kon fa tabaarakallaahu ñëw naa la ci trois bi ñëw naa la ci naar yi kooku war a toog benn kooku dafa war a def Allemagne. États-Unis France Mali Kédougou tukki laay waxtaanee kooku bu toog ku yàlla bind ci naaru yu waaye nag cuun bari na koo dégg mu nekk ci tukki am problème mu këyit yàlla da kaa bind ci maa iyu moo ñu yàlla bind ci ndox duñu gaaw a ñëw lu leen ne may ñu ñibbi sax duñ ko am cuun ndox buy dem du bàyyi yoonam waaye ndox dem la xamee xamul ñëw hmm. cuun man xam-xam laay waxtaanee ndox dem la xam bari na koo xam ni tukkeem day yomb da koy sax jaaxal xamu sax lu tax muy tukki am na ku nitu ndox lu mu lijjanti mën a sotti waaye bu xamul fa tabaarakala ay xeetu saraxam dana ko am ba pare waaye du sedd xolam moo tax nit ba muy lijjanti tukki yàlla yombal tukkiam waaye fa tabaarakallaahu mu dem ba ca tukki problème mu kayit tëkku bari na fukk yooyu ñaanal ci wàllu kayit neuf yëpp ay nitu ndox lañu kon tukki du caaxaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na balaa ngay tukki ma moo nekk ci septième buntu bi ñu bi ñuy jàngale ci tukki li si xaaral sa tukki cuun yonente bi wax nañu ba bés bi ñu war a tukki nee na jeudi la war a tukki guddi gi àjjuma sallallahu alayhi wa na balaa ngay tukki li si xaaral say tukki yonente bi nee na balaa ngay tukki wutal ay àndandoo kon l'islam dafa programme tukki ba ngay tukki tur na la nit mën a nekkee fii lijjanti 3 millions jox ko nit ni ko jàppale ma ma am kayit tukki cun mu jàppale nga am kayit yegg ba foofu sa dara doxul kon fii amoon nga fi wërsëg est-ce que kooku war naa tukki. <laughs> foo dajalee 3 doon wut lu yokk far nga yegg sa dara baaxul kon cun kenn ku ne war nga xam fan la sa wërsëg nekk yàlla fa tabaarakallaa mooy wër leen suufu yàlla si. war leen wërsëgu yàlla yaatu na. cuun ku gëmul ni kenn ku ne dafa am fu yàlla def sa wërsëg. ne la nit nekkee Sénégal mënul am dara yu nekk Europe am. waa kooku bu xamul ni wërsëgam Europe la nekk cuun nu muy def te ñu nekk ci tukki dañoo am fayda. cuun est-ce que xam nga ku tàggoo tukki génn sa kër ni maa ngi tukki te alal al wuti ji alal la tax a jug loo dundee ak dundal sa njaboot képp koo xam ne génn nga ci tukki te wuti ji xam-xam la tax a jug képp koo xam ne tukki bi ngay tukki ci yoonu yàlla la nga xam ne dafa woo dara lu xaraam cuun yàlla da lay jox garaatu nu ba ni ngay wàññeekoo garaatu yonant cuun looy ñaan yàlla mu def ko cuun ku mus a tukki li ma lay wax waxuma la samay wax de wax yonent la wax nee ku tàggoo di tukki da lay jox garaatu nu ba ni ngay wàññeekoo. xanaa kon moo tax ñaanal. ndax fa tabaarakallaahu say ñaan yàlla da koy déglu cuun tukki. taa la kaaf boo koy bind ci arab taa tomb kaaf mooy tukki taa tomb 400 la kaaf 20 mooy 420 moo tolloog samiu tur yàlla bi na ne asamiu cuun asamiu mooy yàlla miy dégg àl na la noppam cuun ku la àl sa nopp loo ko ku la àl noppam loo ko loo ci wax ci nopp def ko <laughs> te cuun bari ku nekk ci tukki bu mu seetaan sëriñ di ko fontoo maanaam cuun ñun ñuy tàmm tukki uh-huh. di dem ci dëkk yi cuun xam nañu ñiy tukki li ñuy jaamu yàlla sëriñ si nekk fii ñu cëpp duñ ko jaamu yàlla. moodu moodu yi. li ñuy wérdu ci turu yàlla li ñuy def ci salaatu alal nabi cuun bari na sëriñ bu ñuy rang fii du ko def ci salaatu alal du ko def ci turu yàlla ñun ay tukkat la ñu xam ne fekk nit France cuun muy def loo xam ne ci azkar ci turu yàlla yow da ngay mujj sax jaaxle du ñu faat waxtu xanaa nit mooy am empêchement ca fa liggéey ñëw rappel waxtu wi. moodu moodu yi et puis ñoo ëpp sax ñi kon ku ci nekk ci tukki bul nangu sëriñ fontoo la sëriñ bu naan dama lay seetal soixante mille francs fan la am est-ce que dafa am seetu Europe ak seetu Sénégal lépp turu nit ki ngay laaj ak turu yaayam kon lan mooy prix Europe ak prix Sénégal yéen lañ bëgg fontoo rek ay nit a ma ko wax de. nit woo na ma ma seetal ko bu sëñ bi man fay naa seet soixante mille fay naa seet vingt cinq mille te ki ne Sénégal nga koy laaj trois mille ki Europe nga koy laaj vingt cinq mille seen salaatu alal nabi yooyu noonu seen turu yàlla yooyu noonu ngeen di wérd wallaahi yàlla leen ci fekk si gëm leen seen bopp. yàlla moo ne adduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen. wa iza saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa'i yonent yàlla muhammad la yàlla wax ni ko sa jaam buñ la laajee yàlla bi ñuy jaamu ban yàlla la ne leen yàlla boobu yàlla bu jege la waaye ku ko ñaan fa tabaarakallaahu dara la may ca la ko ñaan. xoolal Cheikh Seydi Hadji Malick li mu wax ci ñaan ba mu waxee la muy wax ba pare daf wa man daa bizi ala al yaqin yu jab bi maara min al matin ku ñaan ci kóolute wóolu leen yàlla te ñaan ko. Hmm. cun ñaan lu ji du dara ñàkk nga wóolu sa bopp. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gémmin goo musta mooyee yàlla lu ñu la ci ñaanal yàlla mu nangu te xam naa ne bu dee mën sëriñ Jibril ñang sàmm naa maa ngi julli maa ngi woor wala sëriñ sàngam sàmm na mi ngi julli mi ngi woor yor na ay turu yàlla cuun kooku gémminam bu la ci ñaanee yàlla mën a nangu waaye est ce que dala cee war a fonto est ce dala cee war a laaj loo xam ne amoo ko ba ngay dem di lebi ji di ko jox am nga problème nga wax ko sëriñ mu laaj loo xam ne dem nga lebi di la ko jox mais bu aaju ba fajul teg la ñaari problème te benn nga amoon te benn nga amoon am nga problème sa soxla fajul waaye am nga problème bor laa yukallifu laahu nafsan ila wusaha yàlla tegul benn bakkan lu mënul ngay nangu nit di la ko teg diggala sarax nga lebi ji te moodu moodu boo ci gis am na kër gu muy dundal xanaa xamoo dépense yi ngeen di yónnee seen kër ñu koy dundee cuun loolu sarax la yàlla tuyaaba sarax leen ci bindal ku ci amuloo génne sarax doolool sarax soosu yow jot na. sëriñ li ci gën a doy waar mooy murmur yi dañuy dundal kër te ñoom nekkunu fa. mais lu gën a lan ban xeetu tuyaaba moo gën a rëy loolu cuun xeetu jaamu yàlla yëpp feesal biir biiru sa as gor as julit moo ci gën a rëy. di fay ndox goo naanul. te moodu moodu yu bari. maa ngi leen di dénk bari na ku tukki ndigal benn tukkeem neex xam nga lu tax. cuun dafa yegg rek yàlla bett ko xewal muy wan ni ñu yàlla teral na ma. déglu leen ma yàllaayu xal nekkul nit lu mën def ko bari na moodu moodu boo dégg yaay ma ko tëj waaw da ngay yegg sa njël benn tukki bëgg lu neex san sa sa waajur bu jigéen te cun kenn ku ne war na war lu neex ndaayam ak rafet yàlla moo ne laa taabudu ila iyaahu wa bi waalidayni ihsaanan bu leen ma jaamu bu leen jaamu ku yàlla man di leen ma jaamu waaye bu leen pare ci man eh bu leen topp ci sëriñ de dem leen rafetal seen diggante ñaari waajur wala taqul lahumaa uffin bu leen wax seen ñaari waajur ëf cun yàllaa fonk waajur ku tedd a ah, liggéeyu nday ma ko teral ku diiru jàmm a ah, teral nday ma tax teral baay ma tax cuun waaye neex na nga am teraanga defal sa ndey waaye waajur dafa bëgg sagu ndawam nga jëm egg jëndal sa yaay saloo aw ah, chambre à coucher buy jar sept cent mille wala un million mu war koñ ba yëpp ñu leen kaay leen sama doom ji la ma defal <laughs> sa noonu tàmbalee jug ca di càmbalee jug am na ñoo xam ne keroog ba ñu jëndee teere seen famille yëg ko ci lañ am tàmbalee am problème ca ñu tukki moo tax ku nekku tukki wuti ji teraanga wutal kaaraange. léegi kon ñoom leen di wax mooy dandul euh, defal seen yaay wala dandul jënd teere wala. nañuy jënd teere yi waaye nañuy wax seen yaay nañu tëj dencal leen nëbbal leen seen i mbir ci yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cun kooku nga xam ni fa tabaarakallah wa innahu is arada allahu nashatana abana min nuuri nuuri nabil alamin yàlla bind dafa jël ci leeru yi leeram moom yàlla bind ci seydina muhammad soo ko jël leeru seydina muhammad soog ñu cee bind cun kii lan moo koy tere doon xayru xalqilaahi kii lan moo koy teree doon yonent wa maa xalaqa rahmaanu shay'an li nafsihi si waa seydil mahmudi wa habibu yàlla bindu dara ngir boppam lu mu bind ko bind ngir seydina muhammad yonente yi seen njëkk fi fa wa xalqul axlaaqi wal baxsul anbiyaay li zuhri yi faalam wala yàlla bind gim ñu bind yónni gim njëkk yónni yonente du dara ibrahima ba mu ñëwee aadama ñëw ismaila ñëw loolu newuloon dara dañu waroon wax ne yonente bee ngi ñëw kon yonente bi dara mënu ko teree ñëw waaye ba koy ndeyam ju tedd ja amina ëmbee cuun fa tabaarakallaahu yàlla dafa ni ko tàmbale di gis malaaka yi ñëw di ko ndokkeel aadama tàmbale ah, amina tàmbalee gént gént yu doy waar man de sama doom ji bi ma ko ëmbee cuun foto tabaar li may gént yàlla def ni ko tëjal sa gémmiñ boo bëggee li ma def ci moom mu sotti kon ku tàmbalee gis sa doom ay teraanga war a jël ko ay ñaan dee ko ñaanal yàlla waaye bu ko siwal cuun garab gu ñu tàmbalee ji dañ koy arrosé waaye kenn du ci kerlu oh. <laughs> nëbb leen seen teraanga doom yi bañ bañ mat lañ doon ab mbote mbote tabaski lay xaa euh, buñ ko bëggee tabaski buñ ko bëggee tabaski tabaski dañuy xaar mu mat kuy mbote buñ ko bëggee tabaski tabaski dañ koy xaar mu mat kuy nekk ci tukki say mbir tàmbalee dox sa famille tàmbalee puukareewoo yow ku la woo nga yónnee ko nay baaxul de yàlla bëggul ko nay waaye ku la ñaan junni may ko deux mille cinq ku la ñaan vingt mille may ko dix mille dañ lay catu rek. ba dangay dem ba du fi mën a may na moodu moodu moodu yi yëpp mënatuñ dara yi tàlli woon seen njëlbeen tukki tey mënatuñ dara ñoom xam nañ li may wax lan moo tax cat ay aynu xaq wal famu xaq yàlla nee na bët lu am la waaye làmmiñ lu am la sans compter nag noonu yi nga xam ne de moom say taraanga la ñuy bañ dégg sa taraangu ndey la ñuy a dégg sa kaaraange matul ngay def loo xam ne tax nañu dem di la liggéey est-ce que xam nga ñu bare ñu ci tukki lu tax amaguñu kayit da ngay nekk ci tukki yónnee nit sa taraanga ni ko jëndal ma kër wala jëndal ma terrain mu dem foto la terrain yónnee la wala fa tabaarakallaahu mu dem foto la euh, kër yónnee la cuun te kër ga mu la fotool du sa kër. terrain ba mu la fotal du sa terrain. Ah, da laa dóor ba pare dem ci sëriñ di ko ñaanal yàlla kii yàlla bu mu ñu biseeti. Ah, moo tax sama mbokk sëriñ si yan laay waxal. ku ci ab di ñaanal ab moodu moodu ngir jëmm yàlla balaa nga koy defal dara defal ko luy toj liggéey moodu moodu yu bëri lañ leen liggéey cuut maa la ko wax. yal ah, yàlla doole sutura ci barke Seydina Muhammad sànq na mu dégg nga ni tukki dañ koy listixaar léegi boo ko listixaaree da ngay bàyyi ba dem ñaan wala balaa ngay départ nga war a ñaan jiital. balaa ngay départ cuun nga war a ñaan jiital laaj ñaan laaj yàlla ba xam man mii suma tukki bi baax na wala sama tukki bi dana neex wala sama tukki bi fa tabaarakallaahu est-ce que. ab xéwal naa ko ci amee wala bu dee jàng est-ce que diplôme yi bëgg naa ko amee wala tukki bi nu muy mel ci man waxuma la su may wax de wax yonent bi laa lay wax waaye koo xam ne ba ngay tukki mosoo ko listixaar cuun képp koo xam ne ba ngay tukki mu soo ko xool képp koo xam ne ba ngay tukki mosoo ko wàcc ay ñaan boo defee lii ma la wax sa tukki dana neex da ñibbi si waat ci sa dëkk ab jàmm doo fa dee. maanaam fi fi mu toll nii mooy ñi fa la di wax. ña ne laay wax wax gu ma ñu demagul de li may wax nii ña ne laa laay wax képp koo xam ne sa tukki li si xaaroo ko képp koo xam ne sa tukki ba ngay def defoo ci woon ay ñaan ba ba ngay dem nekk nga ci tukki moo xam sa wërsëg yokku na yokkul moo xam yaa ngi tàndeefal cuun defal lii ma la wax. yaay yi ne fii mën nañ ko defal seen doom wala soxna yi wala waajee ko war def lii may wax nii ka nekk ca dëkk ba moo ko mën defal boppam su ma la ko waxee nga xam ni ki ne ci dëkk bi rek moo ko mën a defal boppam cuun da ngay naafile ñaari rakk premier rakka bi dangay ngay jàngi faatihatul kitaab. mooy bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba wala daalin amin nga jàng wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yanqalibu wa yanqalibu ila ahlihi masrura dama bëgg ngeen mën ko moo tax ma leen koy baamul mooy yàlla dana la delloo ci say njaboot ci say ñoon nga ànd ak premier rakkay boo jàngee fatiha ba pare lii ngay jàng juróom-ñaari yoon. set fois sept fois. wa yanqalibu ila ahlihi masrura kon yàlla garanti na la yow ñibbisi yow lu mënti dee doo nekk néewu Europe moom. laa fi léegi ku koy def. loo ci teg deuxième rakk bi nga jàng fatiha benn yoon. wala soo fa yu'tika rabbuka fatarda yàlla sañ na laa jox yàlla da jox par force lu mu lay jox wërsëg fatarda ba ni ko yàlla doy na mooy deuxième rakk bi. soo paree nga sëlmal jàng fatiha quarante fois turu yàlla bu naan yaa baasitu nga jàng ko trois cent douze fois inni salaatu alal nabi salaatu alal nabi nga jàng ko cent vingt neuf mu toll ak lii mu yàlla tiif mooy allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salaatu ala nabi la allahuma salli ala sayidina muhammad nabiyal ummi salaatu ala nabi la allahuma salli ala sayidina muhammad alfatih lima ughliqa walxaatimi lima sabaxa naasiri laq bi laq walhaadi ila siraatika almustaqim lii salaatu ala nabi la mooy julli ci yonent bi cun nga dégg ci ni yàlla mooy joxe wërsëg gi leer na waaye kan mooy séddale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi fatumata binti rasul maami cheikh ahmada tidiani yaakaaru cheikh ahmadou bamba cuun rasulullaay nayul ñaanul soxorul buur bu tey bu mel ni yàlla jox séddalekat bu mel ni seydinaa muhammad cuun ku jaar fii ñaan yàlla yàlla may la waaye nga ñëw turu yàlla bu ñaan yàlla tiif te yàlla tiif mooy lifi tay tey am wërsëg léegi faj am soxla léegi mu faju léegi kuy wedd yàlla tiif rek moo ko mën yàlla latiif mooy falu tey fal nit ki tey turu yàlla bu ñu naan yaa latiif mooy moo koy def cun teel fii ku ñàkk liggéey nga jox ko liggéey turu yàlla bu ñaan yàlla yaa latiif rek moo ko mën waaye cun nan ngay weddee yaa latiif ba ngay def yaa latiif 1111 mooy laa taxaf laa taxaf bu ragal lan moo tax duma ma ragal innaka anta allah ndax yàlla mi ngi ànd ak yow cun ku yàlla nekk ànd ak yow ci tukki gu ngi la law Seydina Muhammad assurel ni la naa la delloo say ñoon ànd ak wërsëg cun looy ragalati lana la sëriñ la nappeeti lan ngay joxeeti sëriñ fa tabaarakallaahu sa xaalis nga am mille cent 1111 cuun boo jàngee un da def wala soo fa yoxti karab bu ko fatarda sept fois. da def yàlla tif def wala soo fa yoxti karab bu ko fatarda sept fois def yàlla tif 10 def wala soo fa bu ko fatarda def yàlla tif 100 def. sept fois def yaa latif cent def wala soo fa yortu kara bu ko fa def yaa latif def wala soo fa yortu kara bu ko fa tarda nga dégg ci lan muy quatre quatre fois di nga jàng sept fois wala soo fa yortu kara bu ko fa tarda quatre fois sept vingt huit quatre fois sept vingt huit vingt huit moo jàpp uruful abajada yi ci lañ tëggee alquran xam-xam laay waxtaanee cuun boo paree ci lii insha allah rabbi boo ko defee yàlla dana la may wërsëg ci tukki yàlla dana neexal sa tukki yàlla dana barkeel sa tukki kon yàlla na yàlla dolli sa tura ci barke yonente bi sallallahu alayhi bu yàlla tas yaakaar waaye naa may waat beneen njëriñ ci tukki dama bëgg nopp noppalu cun képp ku nekk ci tukki te wutee la tax a jug yaa ngi liggéey waaye mënoo am cun tabaxoo kër ñibbisee goo ba dawal oto sa a ngi nekk nii yaa latiifu yaa mu'ni yaa latiifu yaa mu'ni 16641 waaye xam nga noo koy liggéeyee am xaw yi moo jàpp 16641 dimanche nga koy tàmbale boo julee suba ba pare da ngay def 2377 dimanche loolu ngay wérdu yaa latif yaa mu'ni suba teel 2377 lundi 2377 mardi nga wér di yaa latifu yaa mu'ni 2377 mercredi nga wér di yaa latifu yaa mu'ni 2377 jeudi yaa latifu yaa mu'ni nga wér di ko 2377 vendredi nga wér di yaa latifu yaa mu'ni 2377 boo yeggee ca samedi sa nga wér di yaa latifu yaa mu'ni 2379 kon semaine bi am nga am xaw yu latif te cuun am xaw yu am na sëriñ soo xam ni cuun nuñ ko weddi ci at mi sax ba koy weddi ci semaine bi. sëriñ si Modou di ñaan. ni di ñaan loo duñ ko weddi sax ci at mi ba koy ci semaine yow li ma la jox nii bis boo ko jëfandikoo te fa tabaarakallaahu ñoo ngi ci sant yàlla bu wér dafa am sama benn taalibe du sama sax taalibe soppe la. dafa ma woo téléphone ni ma sëñ Jibril man dama lay gërëm di fa santeeg yow ko la di la jàpp di la ñaan loo di la di la ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan ak weer dama am soxla su tiit jaaxle woo benn sëriñ mu laaj ma 3000 euros yàlla dogal ma xëy suba fajarteel di déglu sa sa benn vidéo ngay waxtaan ci njëriñu yaa ja yaa jabbaaru bi nga waxtaan ci yaa jabbaaru fa tabaarakallaahu la nga cee wax ma dem def ko cuun ma xëy suba mu ni mu xëy suba dem ca dem fa la doon sotti ko mbir mi nooy ci moom ba affaire bi jaaxal ko. ma ne ko yàlla wax walillaahi asmaul xusna fad'u biha du su waxi sëriñ Jibril man yàlla. ma am turi yu jaggu tur yu rafet ñaan leen ma ci tur yooyu ma may leen. waaye cun lu gën a leer li waaye cun ku nekk ci dëkk nag dëkk bi dëgër ci yow moo xam Europe nga nekk. moo xam senegal nga nekk. moo xam fenn nga lii mooy noyal dëkk. maanaam nga jógee ñëw Dakar. lii mooy nooyal dëkk. jóge Thiès lii mooy nooyal dëkk nga jógee Dakar dem Mali lii mooy noyal dëkk. nga jóge dakaar fa tabaarakalaaw dépp ko dugg foo mënti ne. cuun lii ma lay wax ni yaa waarisu yaa xadiiru mille cent 3924 suuf soo koy def dana nooy ci yow loo fa lijjanti mu sotti loo fa wut am ko loo fa ñaan ñu jox la ko <laughs> yaa waarisu yaa xadiiru 3924 ku ne Europe mën na ko def ku ne Sénégal mën na ko def yàlla na yàlla doole sutura ci barke Seydina Muhammad. macha allah di ko jaajëfal ci solos waxtaan wi ak ci niveau bi mu yegg ci xam-xam ak it ci jàppandi gi mu jàppandi ak. ci ku ne mën ka jëfandikoo macha allah ci wàllu tukki sëriñ fan yi nag yaakaar naa <laughs> actualité bi nga xam ni lëmbee na showbiz bi lëmbee na euh, réew mi Sénégal muy benn euh, musicien waykat di Sidi Diop demoon bitim réew tëggi waaye mu mel na neuf wala orchestre bi pour ñu bañ a lim comme que enquête bi mi ngi en cours mu mel na ñu bare ci ñi mu àndaloon danoo daw des ca dëkk ba moom mu ñibbisi tey euh, nan la ñu mën a jàngatee loolu ndax it ñooñu <laughs> tukki leen ñuy waxtaane ñoom ñu tukki des fa waaw lenn rek nga ko mën a jàngatee mooy woo maa shahid naa ilaa bi ma alam naa nit buy seede day seede lu mu xam te nit buy wax day wax dëgg ak lu leen tax a mën a daw bokkul ci as ngor cun ànd ànd la tudd dangeen àndoon wuti ànd leen ñëw cun as gor ak nit du ñu tënk contrat ba pare kenn di ko fecc la lañ waxoon dañuy déparé fi Sénégal ànd dem tournée waaye àndaat ñëw kenn ku ne bu ci waxoon euh, kañu àndaloon ni ko man su ma yeggee damay daw mën am amande la yóbbu. war dafa am. ànd ànd la rek. ànd ànd la rek. mais tey bi ay révélation yu doy waar ñu ni nekkee vingt cinq mille quinze mille la leen doon fay est ce que tamit Sénégal yëpp ni bu fekkee noonu la demee ñoom d' accord nañu ci des bi. waa xam nga foofu tamit day dugg ci kenn ku ne ka ngay liggéeyal fonk ko. cuun musicien bi moom la ñëpp xam waaye na mu mel ña ko ëmb ñooy tax mu mel noonu kon boo amee wërsëg ñooñu dimbaleen ci te a tax loolu du musicien bi kese ngay waxal kenn ku nekk ngay àndal fa tabaarakalaaw di liggéey nga xam ne yow chef yow borom place bi yow euh, patron tailleur bi wala mécanicien bi wala yow nga ngay liggéeyal nga xam ni boo amee liggéey sa tur xëy na moo dem waaye ñoom ñooy def liggéey bi fexeel ñu gis seen bopp lu méngoog seen wërsëg. waaye nga compal nga leen di cofal cunde wax dëgg yàlla xëy na am na yor bu rafet boo xam ne bu leen ko yoroon ñoon dañ ko rus a def loolu waaye cun na kuy tax nga tedd te dimbalewu ko ca la tax lam tax nga am ko cun kooku dootul amati benn orma ci yow dootul amati benn rus ci yow kooku day foog ni lu mu def daa avancé wu waaye nag cuun la may wax rek la daloon imaamu jàkka ja ak bilaal ba damay ragal moo ko dal dafa am benn borom teraang dafa ñëw ci biir jàkka ji jël teraanga jox ko fa tabaarakallaahu imaam bi cent mille francs ni ko séddal ak bilaal bi jël dix mille jox bilaal bi jël fa tabaarakallaahu beneen jox beneen naayim bi cuun imaam bi di julli tàkkusaan premier raaka rek benn bilaal bi ne subhaanallah imaam bi xaw a jaaxle xaw a kii mu dem bay rikoo rek fa tabaarakallaahu naa bi ne subhaanallah imaam bi dagg julli wëlbati jàkkaar ngeen ñu leen yeen fa laa jamajee fa jumee ñu ni ko seet seddale ba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 yow nga def de àndandoo do dox di si booru sa ngor de wóor daa